bu mag yi magi Pastef euh, Kër Massar foofee nag nga xamante ni moom moo yoroon poste bu euh, secrétaire général moom daal moo dëddu àdduna ginnaaw rek euh, bañ ko daal di agressé ba noppi ñu koy jaalee képp koo xamante ni yaa ngi woon ci Pastef di ko jaale ay mbokkam famille di ko jaalee waa Kër Massar di wax na rek bu fekkante ni yor nañu plus d'information par rapport à cette agression incha allah dinañ ci daal di dellusiwaat moo waaw euh, Amina mu nekk mbir boo xamante ni euh, laataa saat buy kii sax maa ngi koy gis mais bëggu mën interrompre appel bi mhm. tellement que ni dafay wéy di ñëwaat par rapport ak la sécurité publique euh, parce que bu ñu gisee Yolande kamara moom moo ko publier à travers sa page Facebook te mu nekk mbir boo xamante ni vraiment Euh, dañu wéy di ko dénoncer par rapport ak nu mu amee parce que quoi qu'on puisse dire mooy que ni vingt et unième siècle lañ nekk Sénégal waroon na def de sorte que mu réussir lépp loo xamante ni dafay wéy di soxal par rapport ak nit ñi à pareil moment wala heure bu mu mën doon ñu mën a dox ci fi nga xamante ni moom mooy partout ci ci euh, pays bi euh, sans autant ñu inquiété wu ci benn mbir mais tey problème bi ñu gën a am moom mooy sunu sécurité dafa menacé wu moo xam par rapport ak la géopolitique moo xam aussi par rapport ak la politique interne ñun ñëpp xam nañ ne li ci waroon amul gis nga bërki démboo xam nga démb ginnaaw benn cambriolage bu fa amoon entreprise bu ñu euh, daj yoon ba jël fa plus d' million loolu nag ça veut dire dafay wéy di continuer te ça a toujours comme ça Sénégal noonu la mësa mel jàpp naa ne nag lu ñu wéy doon soxla dafay ñëw euh, par rapport ak li nga xamante moom mooy sunu ay institution mais lépp euh, en fin de compte day ñëwaat ba ci li nga xamante moom mooy parce que boo xoolee sunu constitution ñoom ñoo xam état mooy wéy di garantir waxtaane lool ça dire que ni à un moment est ce que tey waruñu dem ba moor bi nga xamante peut être dafa wàcc benn heure bi mu dem ñibbi tranquillement sans autant muy nekk di en tout cas murmure bi mais tey ñun ñëpp xam nañ ne yenn moment yi yenn heure yi bu la fekkee ci yenn béréb yi da xam ne sa bakkan mu ngi ci xottu gerte loolu nag ça veut dire que mu am benn appartenance politique wala mu identifié ci benn formation politique identifié wu ci Pastef wala képp koo bi ñu dissoudre à un moment donné da nga gis lu jëm ci wàllum arrestation ci ñoom la gënoon bëri lu jëm ci peut benn ba ñuy dem ba ko woowee ab acharnement dama jàpp nag ne loolu vraiment c'est inadmissible ci dëkk boo xamante ñun ñëpp ñoo yem kanamu yoon parce que loolu mooy li nga loolu lañ bind ci sunu ay constitution mais bu ñu xoolee ñu ne voilà bokkoon na ci benn kuréel boo xamante ñoom la woowee magi Pastef politique boo xamante ni euh, vraiment c'était saluer mais lu mel noonu bu arrivé xamuñu ñan ñoo ko def ñi ko def aussi tamit mën nañ bañ xam kii moom mooy kan mais par rapport ak li nga xamante ni loolu moom mooy jëf ji dañuy interpréter waat encore une fois l'état par rapport ak contexte bi ñu toll nga xam ne ay élection lañ dëg mën mu wéy di garantir voilà la sécurité publique de sorte que lépp loo xamante dafa nekk ci dëkk bi dinañ ko mën a def de sorte nga xamante ni ñoo fa nekk surtout lu jëm ci banlieue bi kon jàpp naa ne lu am solo mooy ginnaaw bu ñu ko jàllee ay mbokk am ñaanal ko yërmande yàlla da xam ne vraiment état aussi tamit xaw na bàyyi tuuti par rapport ak ay responsabilités voilà euh, agression yi moom euh, nekk na loo xamante ni bari na euh, du ñu fàttali daaw la ma daaw géej il a deux ans si je me pas il y a une femme qui s'appelait ci côté Pikine noonu. Mhm. dafa fekk ci benn foofee ñu daal di ko fay agressé ba euh, faat li nga xamante ni moom moo di euh, bakkanam par la suite nag mbir mu occupé woon na les média ba keroog ñu daal di euh, teg loxo ki nga xamante ni moom moo def ñaawteef bi au final ki nga xamante ni moo génn àdduna moom mooy moom moom moom mooy perte parce que tantôt des fois looloo tax sax nit ñi di bañ naan. Euh, ku ku ku rey nit des fois war a bokk ci grâce wala mhm. quelque chose du genre parce que agression yi tantôt da nga daan jàpp ni sax boo doxee guddi la ba nit ñi limité seen dox guddi naan à partir de 22h du ma fekk si vers demi wala truc du genre mais maintenant en plein jour sax tu ne pas en sécurité en plein jour mën nga jaar ci ay secteurs yoo xamante ni peut-être dafa wéet ñu daal di lay interpeller euh, certains ñi nga xamante ni moto la ñuy utiliser pour mën la atteindre wala dara euh, lu ci mënti am daal nguur gi jëlaat ay matukaayam ci li nga xamante ni moo di sécurité publique indépendant ma jël auditeur bi